mbokk yi salaamaaleykum ñu leen di dalalaat jàmm ci seen euh, invité de la rédaction Sénégo seen site officiel ñi euh, ñi nga xam tam ñu ngi seetaan si yeneen plateforme yi di Twitter euh, Facebook YouTube Instagram ñu ngi nuyu ñëpp tey ñu ngi dalal si invité de la rédaction Baye Salla Mar moom mooy président des écologues du Sénégal wala alliance alliance des écologistes du Sénégal ADES. des écologistes du Sénégal. ADES ADES kon moom la ñu dalal tey muy loo xam ni lu am solo la xam naa denc tooj tuuti eh, bàyyi saa la ñu ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyoog askan mi ñu seetaan ci Sénégal. waaw maa ngi leen di nuyu di leen fay di rafetlu émission bi. et mm-hmm. di nuyu sénégalais yëpp. Mm-hmm. voilà alliance des écologistes du Sénégal loolu bu taxawee tey lan nga ñuy wax lan ngay wax sénégalais yi pour ñu mën a comprendre loolu. waaw da nga may may avant may dugg ci loolu rapidement rek. Mm. parce que dafa am tiis bu dal suñu kaw Sénégalais yi démb. Mm, mm. avec la disparition d'un homme d'une dimension exceptionnelle. donc maître Alioune Badara Cissé. Mm-hmm. donc qui est avant tout un digne fils de Saint-Louis. donc mm-hmm. jóge fii ñoo ngi mm-hmm. ñaan yàlla yàlla xare ko àjjana. semaine bële aussi le monde écologique a perdu. aussi un des présidents de parti donc mmh. le professeur Pape Meïssa Dieng mmh. donc mu jiite woon convergence des écologistes du Sénégal ñuy mmh. ñaan yàlla rek yàlla xare leen àjjana Euh, waaw suñu waxee ADES donc parti écologiste la suñu mm-hmm. waxee parti écologiste xëy na xel yi day dem ci li nga xamante ni moom mooy wàllu environnement mm-hmm. euh, mais euh, li ci ëpp ñun ci suñu philosophie ak li ci ëpp ci suñu ay objectif dañ ko teg ci li nga xamante ni moom mooy le développement durable mm-hmm. sàmm alam bi lu am solo la parce que loolu condition la dañu gëm ni loolu mooy seul rempart bu mën a téye aujourd'hui le capitalisme ak problème yi nga xamante ni moom moom la jur bokk na ci problème yi mooy inégalité yi nga xamante ni moom moo am entre riche et pauvre bokk na ci problème yi mooy perturbation yi nga xamante ni moom moo am ci wàllu environnement. Hmm. donc loolu muy benn et puis aussi benn ci objectif yi mooy le développement euh, ultime. Hmm. individuel et collectif parce que lépp looy def ci kaw suuf aussi. Hmm. jeexital bi moom mooy fexe nan la doomu aadama aussi di gën a mën a ñoŋale dundam ci kaw ci kaw suuf. beneen bi aussi mooy sur le plan social. xool vraiment nan la ñuy jàppale doomu aadama yi aussi pour que seen dund gën a mën a ñoŋ. ci kaw suuf mm. Mm. mais nag ñu teg ko aussi ci ay objectifs économiques yoo xamante ni day wàññi li nga xamante ni moom mooy pression sur environnement donc parti politique la bokk ci parti politique bi nga xamante ni euh, mouvance écolo écologique la idéologie écologie la mm. donc bokk nag ci li nga xamante ni ñoo ngi ko déposé officiellement suñu ay papiers le 25 avril bi passé auprès de l'autorité préfectorale parti bi ay écologistes rek la ëmb wala waaw parti bu ne parti écologiste xam nga bu ñu waxee wàllu environnement rek. da ngay mm. daal di xalaat dimension bu transversale. Mm-hmm. dimension boo xamante ni c'est multi secteur sectoriel. Mm. tey jii dama gëm ni amul benn domaine booy jël. Mm. te écologie amu ci wàll. Mm-hmm. donc c'est vrai que parti écologiste la mais aussi parti la boo xamante ni day xool lépp loo xamante ni doomu aadama mi ngi ciy yëngu. ak mm. secteur bu mu mënti doon aussi. Mm. c'est la bienvenue. Euh, wax nga ko li leen tax a jóg mooy dundinu doomu aadama yi daal di gën a ñoŋ maanaam mu mucc ayib bokk na ci loolu parce que environnement moom dafa ëmb lépp ah euh, fépp même dundin doomu aadama bi sax environnement. moo ko daal di ëmb mm. tey ñu gis loo xamante ni muy dund doomu aadama bi mi ngi commencé di déga dégradé wu bokk na ci lenn lu koy dégradé mooy wàllu inondation ñu ngi ci toll dañ daan gis ay jamono euh, Baye Sala da daan taw ay taw yu bëri mu door a am inondation waaye léegi ñaari fan rek mu am inondation waaye itam ci yenn gox yi ñu gis ne am na ñoo xam ne ñu ngi dund jafe-jafe yooyu tey boo may expliquer ci phénomène boobu lan moo ko indi ak lan moo ko war a mën a saafara. waaw inondation moom depuis àdduna am ba tey. dafa am ay xeetu perturbation yoo xamante ne ak ay phénomènes naturel mm-hmm. parce que boo xoolee àdduna bi ñu nekk nii. Mm-hmm. bu dee cent pour cent. Mm-hmm. parce que les soixante onze pour cent ndox la. donc trente pour cent rek à peu près mooy li nga xamante ni moom mooy terre suuf nga xamante ni mën nañu dund. mu am nag li nga xamante ni moom mooy cycle de l'eau ndox day nekk ci suuf. Mhm. filtre premier rôle suuf moom mooy filtre après ndox moomu day changer. nekk mhm. gaz jóge fa nekk pluie donc muy cycle bi nga xamante ni ñoo ngi maintenant ci biir loolu ndox buy wàcc dafa am lu ñuy tudde ay exutoire. Mhm. nga xamante ne boo point haut boo gis am na fu ndox di dajaloo. muy ay bas-fonds foofu doomu aadama waru faa mën a dëkk. am nag phénomène inondation kii ba nga xamante ni sécheresse moom moo fi amoon vers les années soixante dix. li nga xamante ni moom mooy nappe phréatique bi wàcc. bi nappe phréatique bi wàccee ay doomu aadama. par négligence. Mm. donc ñëw nañu ba dëkk foo xamante ni war ñu fa dëkk muy benn point. deuxième point aussi gis nañ ni ñoo ngi ci période changement climatique. Mm-hmm. te ku wax changement climatique wax ni dafa accompagner avec des ex des événements extrêmes. Mm. bu nee événement extrême mooy perturbation écosystème bi nga xamante ni des fois fooy xaar taw benn fan mën nga fa jot taw weer. wala mm-hmm. taw ñaari fan nga jot fa taw ñaari weer wala yooyu. Mm-hmm. donc ñetteel ba ma gëm ni il ne faudrait pas se cacher derrière les changements climatiques pour justifier yenn négligence yi nga xamante ni dafa am. Mm. ak yenn erreur ak sax yenn lâcheté yi nga xamante dafa am. parce que nit ki nga xamante ni danga yor société. Hmm. nga xamante ni da yor entreprise wala organisation. publique wala privée nga fekk foo xamante ni ay doomu aadama waruñu faa dëkk nga ñëw jaay leen ay terrain tout en sachant que fii nii donc kenn waru ko mën a aménager pour ay nit ki man mën ma ko tudd lu dul lâcheté. Hmm. sénégalais bi nga xamante ni aussi dafa yor xaalis xool ni fii waru faa mën a dëkk mu dem def fa xaalisam aussi négli négligence la. Hmm. donc yenn erreurs yi moom mooy avec la complicité yenn ñi nga xamante ni ñoo ngi liggéey ci administration. war a mën a xool vérifier loolu nga xamante ni moom lañ fay def ñu bàyyi wala ñu délivrer ay euh, autorisation yi nga xamante ni aussi moom mooy permettre nit ñi ñëw dëkk fa donc voilà c'est vraiment un système bi nga xamante ni une un problème muy problème systémique bi nga xamante ni vraiment ça fait appel à une solution systémique sénégalais bi nga xamante ni aussi gis na ni état bi ñëw na investir ay milliards def ay canaux d'évacuation pour que ndox mi mën a dem nga jël sa mbalit sotti ci donc kooku aussi mën nañu xam ni donc du loo xamante ni ay bonne pratique la donc ce qui veut dire que inondation yi Sénégal c'est vrai que ay années ngi nii ba tey mi ngi am mais aussi état am na côté boo xamante ni def na fa parce que tey booy xool vers les années depuis ñuy lancé le plan là inondation yi a des acquis mais il reste beaucoup à faire maintenant l'erreur qu'il ne faudrait pas commettre mooy se cacher derrière les changements climatiques pour mën a justifier aussi yenn problèmes yi nga moo tax inondation yi am euh, bu mu tax ñu ne. amul ay manquement waaw ay manquement manquement yooyu boo ko xoolee tamit est-ce que amul problème d'assainissement boo xamante ni am na ci réew mi parce que am na ay gox yoo xamante ni yu bëri yoo xam ne waxuma ne sax taw mais pour auto sapeur pompier dugg fa sax c'est tout un problème. tamit moom laal wax man tey jii. Mm. maa ngi dëkk ci banlieue. Mm-hmm. tey ñun problème bi ëpp bi ñuy teel moom mooy problème assainissement. Mm-hmm. ba léegi nii da dugg ci banlieue bi yenn zone yi xamante ni gas fosse moom moo fa am. tey jii nii mënoo régler problème environnement wala problème inondation te waxoo. problème mu assainissement. donc il y a changement climatique am na mais encore une fois l'erreur qu'il ne faudrait pas commettre mooy se cacher derrière ces changements climatiques là pour justifier yenn manquements yi moo tax sànq man la problème système la. parce que tey mënoo régler problème inondation te régler woo problème changement climatique. mënoo ko te régler woo problème assainissement mënoo ko te régler woo régler woo régler woo il faut que ñu xool def la part des choses xam ni intervention yi dañ ko war a cumuler mu leela ni tey jii nii il faut une approche systématique moo gën ko ci nekk yor sa benn pàcc di ko di ko doxal c'est vrai les manquements moom am na te ça il faudrait pointer est-ce que ci côté boobu tamit li ñuy wax plan décennal bi nga xam ne président euh, wax na ko ba génn ci ay milliards ñu commencé defar euh, yenn euh, secteurs yi nga xam ne dafay inondé comme par exemple bu ñu jëlee le cas de Kër Massar est-ce que plan décennal boobu nga xam ne léegi sax mu mat dix ans yu ñu wax est-ce que tey warul woon am benn résultat boo xamante ni bu tawee ñaari fan sax inondation dootul demee noonu ci yenn gox yi. waaw gis naa ni le plan décennal depuis ñu lancé ko ba tey jii. xam naa léegi mat na. wala boog daanaka léegi léegi moo. benn at moo ci des. wala ñaari at moo ci des donc tey jii. au moins waroon nañu gis avancé yu gën a mën a. quatre vingt quinze pour cent pour cent. mais hmm. l' état aussi am na ñoo xamante ni y a des sorties yi nga xamante ni nit ñaa ngi koy def. Hmm. bu ne plan décennal ñenn ñi def nañ ci ay milliards kooku gëm naa ci zone bu mu dugg. war nga hmm. gën gis les réalisations le problème reste entier bu ñu xoolee si l'on se fie aujourd'hui ci yenn perturbations yi am y a des avancées am na ay zones yoo xamante ni amoon na en deux et tout ça. mais ren. war nañu toll fenn foo nga xamante ni au moins. bu mhm. fekkee ndox mi mënuñu ko évacuer à cent pour cent yi. du ci mhm. bëri mën a mën a dem. Mhm. et puis bu ñu commettre erreur war ni inondation Kër Massar rek la yem. en deux mille vingt daaw il a plu entre le 3 le 4 ou bien le 4 et le septembre. Mhm. mais y' cent eu 433 sites yoo xamante ni dañu inondé au mhm. Sénégal. Mhm. du rek yemul rek Kër Massar c' est vrai que Kër Massar. yemul Dakar tamit yemul rek Dakar kese. Touba fépp la au Sénégal. donc tey li ci gën a metti mooy problème day am mais après dafa am benn triptyque boo xamante ni man chaque jour moom lay seetlu. bu ne problème am na l' état a dégagé des milliards soo ci paree rek beneen bi ci topp mooy scandale problème. dégager des milliards scandale moom moo ci topp te nag ak secteur boo mën ci jël donc tey ma gëm ni loolu solution bi moom mooy benn point nga séparer l'argent du contribuable ak la gestion de l'État mhm. donc loolu boo ko xoolee rek di nga gis ni xëy na mën nga am début de solution mhm. muy benn mhm. ñaareel ba le plan décennal gis naa ni bërki démb l'ancien premier ministre bi doon coordonné loolu bi mu génnee nee na 2013 kese lañ ci génn presque 47 milliards def ko ci donc depuis 2013 xëy na nee na sore nañu ci objectif plan décennal bi donc muy ay mbir yoo xamante ni xam naa ni war nañ ko évaluer aussi pour xool. Mm-hmm. ñetteel ba moom mooy gis nañu ay accusations et des contre accusations yi nga xamante ni mi ngi jóge ci ay affaire moto pompe ak yooyu. Mm-hmm. moom mooy dellusiwaat ci scandale yi nga xamante mais l'un dans l'autre boo dégloo ki nga xamante ni moom mooy Omar Gueye aussi mi ministre collectivité nga xamante ni moom mooy yor coordination loolu. Mm-hmm. nee na moom moo ci des pour que vraiment liggéey bi ñu doon liggéey sumb. c'est mi ngi def mais aussi fi ñu war a gën a mën a accentuer di xool moom mooy vraiment dans le domaine de l'évaluation et surtout sanction Sénégal ñun dañuy dem te duñu sanctionné. nit nag boo koy sanctionné mën nga ko sanctionné positivement wala nga sanctionné ko négativement. te ngay évaluer aussi alalu askan mm. parce que à bu ñuy wax milliards loolu aussi du ay caaxaan. Mm-hmm. parce que c'est beaucoup d'argent nous sommes dans des pays pauvres très endettés. Mm. ressources yi demewul ni mu war a demee donc lépp loo nga xamante am nga ko rek boo koy def rek da nga koy def fi nga xamante foofu lañ ci côté dëkkuwaay lu wër askan bi muy environnement tout ça changement climatique waaye tamit bu ñu ne environnement changement climat euh, kii tamit euh, si wàllub écologie am na benn jàngoro boo xam ne ñëw na ci àdduna wërngal këpp dugg na suñu biir réew euh, tey jàngoro boobu noonu def ay loraange feebar gi bëri muy benn virus tey tamit ci wàllub yéen seen seen seen seen xam fi mu toll naka ngeen koy jàngatee ak fi mu nekk nii wàllante gi ak ni mu wëree àdduna waaw man dama gis ni Euh, boo jàngatee feebar bi ak ni mm. muy demee à l'origine mi ngi jóge ci ay agents pathogènes ñu wax ay virus mm-hmm. muy virus su Covid mm. doomu aadama bi muy ñëw ci kaw suuf dafa am loo xamante ni dafa fekk ay écosystème mm. virus yooyu dafa am fu ñu jóge woon mooy ci animaux yi mm-hmm. maintenant boo xoolee tey benn euh, animal bu mel ni chauve-souris maanaam njugub wala pangolin ñooñu ay animaux la yoo xamante ni dañuy dox ak ay virus boo xoolee chauve-souris rek njugub kese day dox ak plus de deux cents virus maintenant lan moo changé ba tax tey virus yi jóge foofu di dem ci doomu aadama yi. parce que am nañu benn mode dundin bi nga xamante ni moom mooy dem ba perturber l' environnement. bu ko perturber nag virus yi dañuy jógee ci njugub yooyu. jóge ci pangolin yooyu. ñëw ci li nga xamante ni moom mooy doomu doomu aadama parce que pour que pandémie am. ñett il faut que ñetti condition yi mën a daje. Mm. mooy la présence du danger mooy le virus ñaareel ba moom mooy la possibilité de transmission jóge ci animaux yi mën a ñëw ci doomu aadama ñetteel bi moom mooy la vulnérabilité maintenant la présence du danger depuis que le monde est monde virus dafa mës dund ci kaw àdduna parce que noonu la ko yàlla sàkkee comme ni ma sàkkee comme ni mu sàkkee sàkk ñeneen la présence du danger la vulnérabilité doomu aadama dafa mës a par rapport à ça maintenant la Euh, élevage ak agriculture ultra concentrationnelle ultra intensive ba nga xamante ni dañuy perturber environnement boobu. bu ñu ko defee nag les animaux deviennent de plus en plus faibles virus yi dañ fay jóge ñoom it pour que ñu mën continuer di dund. il faut que ñu feneen fu ñu muté bi mmh. pour donc loolu da ngay daal di xool ni le problème du Covid. Mmh. au départ c' est un problème purement environnemental. maintenant loolu nag bu amee bu ñu ñëwee ba ci doom aadama yi la ñuy muté wu. Mmh. gën a daal di jël li nga xamante ni moom mooy cette possibilité de transmission la et ñu nekk ci benn contexte boo xam ne c'est contexte de mondialisation. Mm. mooy tax parce que tey bu mondialisation amul woon xëy na virus ba fa mu yemoon ci waa rek xëy na foofu la yem. Mm. mais tey avec euh, le transport de masse bi nga mm. xamante ni moom mooy. am waaw dem beeg dikk beeg yooyu mooy dem mooy tax ba nga xamante ni pandémie am na et foofu aussi ñu xool ni yeneen scandale am na fi moom mooy triptyque bi ma lay wax. problème Covid am na li ci des l'État a dégagé des mais li ci topp moom mooy. problème scandale ce qui veut dire que waaw covid day ñëw fracturer d'abord nos familles parce que tey ku ci ñàkkul sa mbokk ñàkk nga sa xarit wala nga xam kenn koo xamante ni dem na ci à cela s'ajoute deal yi nga xamante ni nit ñaa ngi ko ci soupçonné ay milliards yoo xamante ni kenn xamul après fu mu jëm muy beneen problème buy ñëw diviser waat état hmm. diviser waat la population sénégalaise parce que tey jii nii rek boo fa génnee li ngay jëkk xalaat moom mooy xaalis man li ma mooy problème fu mu amee boo fa génnee c'est à coût de milliards waaw débat bi yëpp après ci wàllu xaalis lay mm, jóge mm. donc ce qui veut dire ñun war nañu concentré waat ci problème yi jéem a xool ay solutions structurelles par rapport ak yenn problème yi mm. et puis aussi ñuy ñaan yàlla feebar la boo xamante ni aussi lëmbe na àdduna bi yëpp ñuy ñaan yàlla yàlla tàqal ñoo ak ah. mbas moom ñaari question mooy dese benn bi dañuy wax tamit ci wàllu gestion ba tey la ñuy waxagum gestion boo xamante ni nit ñi am nañ ci tiitaange coow li nee na kur tamit ci réew mi depuis biñ ko commencé wax muy wàllu pétrole gaz mm-hmm. feeñ na ci biir réew mi ñu ngi tàmbali liggéey bi eh, ñu ngi wax sax benn date boo xamante ni Sénégal dina commencé production bi di jaay pétrole eh, bitim réew eh, tey pétrole boobu commencé na génn tey ban ban anam lañ ko war a gérer ak lan la mën a indi premièrement ci wàllu environnement ak i tamit lan la mën a jariñ réew mi. ci Sénégal pétrole booy xool ak gaz ay ressources naturelles la. Hmm. c'est une bonne nouvelle. que mm. Sénégal tey am pétrole am gaz parce que c'est l'occasion pour mm. ñu. def benn saut bu ñuy permettre que dinañu jóge fii au moins mën a accéder ci benn niveau. de développement ci ndóol dem ci riche. waaw jóge ci ndóol vraiment dem ci richesse. ça mm. c'est ça c'est la première des choses. deuxième des choses. man gëwuma la malédiction du pétrole. parce que ressource la boo xamante ni adduna bi yëpp a ko soxla. te ressource boobu il faut que nga jël ko utiliser ko à bon escient pour que doomu aadama yi seen dund mën a ñoŋ. boo xoolee tey ci pays africains yi rek ngay dégg ñu ne la malédiction du pétrole mais tey dëkku naar yi ay Émirats arabes unis ay Qatar yi ay Arabie seen niveau de développement bi ñu toll nii dara may leen ko lu dul pétrole ak gaz yi nga xamante ni tey jii am nañ ko. Mm. donc c' est une de gouvernance boo demee tey fu mel ne Nigéria am nañu pétrole. am nañu yeneen ay ressources mais tey problème yi tey jii lañ dafa ëpp moo am nag loo xamante ni day accompagner aussi pétrole ak gaz la gestion parce que tey boo demee ba ci biir ay naufragé buy am tey jii nii da ngay gis ne problème environnement yi bëri na mm. mais mm. loolu lépp am na ay outils yoo xamante ni d'aide à la décision yi xamante ni moom la ñuy woowee les études d'impact environnemental balaa benn exploitation di am. nit ñi dinañ def ay études wan ni kat par rapport à tel problème disposition yi la ñu war a war a mën a mën a jël te disposition yi moom mooy les dispositions yi nga xamante ni bu ñu ko defee mën na gën a mën a atténuer. Mmh. donc c'est une bonne nouvelle. il faut que ñu koy exploiter gaz ak pétrole mën na nekk mais aussi il faut que ñu bañ a bàyyi loolu rek ñu xoolaat aussi tout ce qui est énergie renouvelable. Mm-hmm. ñu verser ci nga xamante ni moom mooy mix énergétique pour mën a lutter aussi contre lépp li nga xamante moom mooy wàllu changement climatique. Mm-hmm. lu am solo la lu baax la mais tey nañuy delluwaat di dégluwaat suñu scientifique yi di dégluwaat aussi les experts pour gën a mën a aussi gérer loolu nga xamante mooy ressources yooyu. fi ñuy jeexalee euh, seen parti di alliance des écologistes du Sénégal ñu ngi jëm nii élection locale la muy maire yi lan ngeen fas yéene yéene ci li nga xamante ni moom mooy ci élection est-ce que samp ngeen seen ndënd ban stratégie wala boog yan perspective ngeen am ci lañu jëm muy élection législative yi. waaw parce que euh, loolu dafa am solo trop ci ñun parce que on est en de travailler pour vraiment mm. faire aussi de des partis écologiques presque première force politique fii ci Sénégal te mhm. actuellement nii ñoo ngi ci nii incha allah xam na ci fan yii di ñëw rek di ngeen ci am yeneen nouvelle mhm. donc ñun élection locale yi ñoo ngi koy préparer en tant mhm. que parti écolo écologiste comme ni ma wax di ci liggéey aussi suñu yeneen moroomu naakaan suñu yeneen moroomu parti yi nga xamante ni moom mooy parti écologiste yi pour dem vers la grande alliance des partis écologiques euh, du Sénégal man mii di wax ak yow je suis candidat la mairie de Saint-Louis que on voudrait faire de la première ville écologique du Sénégal tey boo xoolee suñu ville yi amul ci benn ville boo xamante ni day répondre ci norme écologique yi. Mhm. ñu xool ci critères yi parce que tey pour nga am ville boo xamante day ci norme écolo écologique yi il faut que la gestion des eaux usées nga mun mhm. ko traité mhm. traité aussi la gestion du cadre de vie. nga traité aussi la problématique de la pollution sonore. kenn du ci bàyyi xel. ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen. donc tey jii man dama gëm ne ci àdduna bi du hasard boo gisee les partis écologique tépp luy élection locale en général. Hmm. ñu commencé di ci am ay résultats yoo xamante ni. comme par exemple en France. en France ak ay hmm. Suisse ak yeneen yoo xamante ni hmm. ñoo ngi ci nii. donc tey parce que gérer une ville. moom mooy en général gérer euh, les problèmes écologiques. Mhm. donc tey jii ñu nit ñu am ci ay taxawaay yoo xamante ni bëgg nañ ko def parce que tey suñu ville ñu am nii amu ci benn ville boo xamante ni day répondre aux normes écologiques. Mhm. te pour nga xamante ni ñun ñii war nañ ci mën a génn il faut que vraiment ñu mën a bàyyiwaat xel écologie waat xel environnement. Mhm. parce que tey lépp loo ci deful aussi dangay gis ni da nga koy mën a dund am na benn adage bu ni lépp loo jàngul. par la sagesse di jàng. par la mais est a ngi yéen bëgg a dagaan baatu askan bi sàmm ngeen seen dënd pour maire mais bu ñu waxee tey alliance euh, des écologistes du Sénégal est-ce que am yenn benn euh, nu mu di méthode de communication pour gën a sensibiliser askan bi ñu xam loolu ban njariñ la leen mën a amal surtout yéen a ngi jëm ci élection tamit. waaw loolu lu am solo la muy wàllu mm. communication. Mm. heureusement ba tey jii nii. Mm. la prise de conscience commence à être réelle. parce que tey gox boo dem ak goxaat boo dem di nga fa fekk ay nit ñoo nga xamante ne tey jii nii ay association ay sàmm sama sama gox. nit ñi waaw sama sama gox même dans le langage bi nga xamante mooy le langage euh, populaire. Mm. da gis ni wàllu sàmm wàllu aar. Mm. wàllu defar loolu day ñëwaat ci sénégalais yi muy benn. Mm. ñaareel ba c'est vrai il faut le reconnaître à un moment donné aussi les partis écologiques seen discours c'est au fil du temps c'était devenu inadapté. donc moo tax loolu lépp ñoo ngi ciy liggéey. nga xamante xool les mooy wàllu sampum garab. et puis ci wàllu gestion des déchets. or problématique conscient de ça et puis ñoo ngi ciy liggéey te li ci gën am solo moom mooy ñun ñëpp ñu regrouper suñu ay forces def benn bloc vraiment nit ñi xam ne aussi les écologistes ils sont là et puis aussi war nañu dem participer ci li nga xamante ni mooy instance de décision yi pour mën a jàppale askan wi parce que askan wi sonn nañu. lu tax xalaatu leen dem ci coalition ak parti yi nga xamante ni ñoom lañ fi xam parce que dégg nañ fi ay coalition yoo xam ne mi ngi waaj a pour mm-hmm. pourquoi pas defu leen loolu. Mm-hmm. ngeen dem en solitaire muy les écologistes rek. bëgg dem ci élection. waaw d' abord question de gis-gisin la. Mm-hmm. dans un premier temps. parce que mm-hmm. ñun dañu dem ba gis ni. Mm-hmm. ñi nga xamante ni ñoom ñooy teg seen quoi seen coalition yëpp seen système bi nga xamante ni moom lañu teg. mooy système capitaliste gis nañu moom moo ñu indil problème yi ñu am. d' abord muy problème gis-gis. tey jii nii balaa ngay dem ci yeneen coalition déjà nga xool yow sa force parce que am nañ fi ñeent wala juróomi parti écologique yoo nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk balaa ñuy dem ñun di defaat yeneen coalition ñu xool parce que ñoo bokk même vision bokk même gis-gis bokk même mbir bi ñuy xeex donc balaa ngay dem di wàlliyaani ku wàlliyaani dafa fekk sa dëkk moom moo tëggul balaa ñuy àgg ci yeneen étape tey ñun écologistes yi nañu dajaloo d'abord suñu biir ñun ñooy le premier loolu mooy le premier défi à relever mm. maintenant le deuxième défi à moom mooy bu ñu jógee ci élection locale yi am na ay élection législative fexe ba dugg ci représentation nationale parce que mm. tey boo fa demee gisoo fa benn écologiste ñetteel ba ñu jéem a xool li nga xamante ni moom mooy les élections présidentielles travailler pour mm. faire vraiment de la force écologique la première force politique du mm. Sénégal naa loolu lépp nekk ay stratégie la ak liggéey ak ay recherche de moyens yoo xamante ni ñoo fi parce que bu ñuy xool yenn catégorie yi nga xamante ñoom ñoo absenté dans les instances de décision bokk na ci les écologistes bokk na ci les artistes. Mhm. que ça aussi il faut le dire au sein de l' alliance des écologistes du Sénégal bëri na ci ay artistes yoo xamante ni aussi ñëw nañu. ñëw nañu aussi wuy suñu parce que dafa am loo xam parce que dama gëm ni pour nga développer réew lépp loo war a tëgg rek da ko war a jaarale ci sa culture tey jii mm-hmm, mm-hmm. donc moo tax ñun tey ñu ubbi loxo ñi nga xamante ni ñoom ñooy artistes yi ba tax nañ am na sax ñenn ñoo xamante ni suñu ay membre lañu ñoo ngi ciy waajal ay événement yu am solo mm-hmm. lancement par exemple idée un artiste un arbre yooyu ay san suñu benn mbokk bu mel ni Amadou Ousmane Diop tey jii mi ngi ciy liggéey liggéey bu am solo pour que artiste boo mënti jël fii rek Sénégal mu mën a jël benn garab au moins sant te loolu rek c'est déjà symbolique pour mën a atténuer li nga xamante ni moom mooy les changements climatiques. Mm-hmm. oui nous sommes pour des alliances mais dans un premier temps il faut que vraiment ñu mën a ñun regrouper en tant que force politique écologique pour mën a peser. muy ngeen xam seen doole fan la toll. commencer ak seen doole ba leneen di leen siy fekk si. Mm-hmm. mu nekkoon benn waxtaan boo xam ne waxtaan bu am solo la c'est boo xoolee c'est un peu technique nekkul benn waxtaanu. politique boo xam ne dàggasante la xas ñii xas lii xas lii mais c'est un peu technique pour gën a jàngal askan bokk na ci li ma la doon laaj tey ba xam am ngeen ay stratégie de communication pour nit ñi xam lan mooy les écologistes du Sénégal kon waxtaan bi indi na loolu te nit ñi jàng nañ ci lu bëri bàyyi Sall Mar président alliance des écologistes du Sénégal ñu ngi lay gërëm bu baax a baax. maa ngi leen di gërëm bu baax di leen sant aussi di rafetlu émission bi aussi di woo sénégalais yëpp ñu ñëw jàpp ci mbiru écologie parce que gëm nañ ni mooy la seule voie bi nga xamante ni moom moo mën a jëmale suñu réew yi kanam.